asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu sama mbokk nekk fii nekk mbokk daara ngeen dalal ma kër gu tedd gi te loolu rek mooy wane ne ah foog ngeen seen ndax lu ma bokk ak yéen mu ma melokaanoo woon melokaanu daara ngeen di ko séentu ci man du ngeen ma dalal fii kon loolu marché baa bu ñu yàlla mayee ñu jóge ci daara ji dem ba nga xamee ne nii ñi ñuy wax ne ñooy yi gën a mag ci dëkk bi suñ waxee seen diggante yàlla suñ daje yow dañ lay wax ne la yéen da ngeen a réussir ñun dañoo échoué bu ñu ñemee dugg ci lii wax jooju ci la bokk beneen wax bi mooy ñun waa daara ji dañuy toog bu baax di topp ci nit koo xam ne nii ñun lañuy def buñ ko ko joxoon bu ko man te ñoom ñooy eh, fëgg seen dënn suñ biir dama ko wax genn góor mu ne ma loolu yàlla wax na leen ko nee na qul hal unabbiukum bil axsarina amalan alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yusinuuna sana wax leen ñi nga xam ne dañoo réer seen lépp baaxul ba noppi ñoom pour ñoom ñoo def lu baax ñu demaat ci liggéeykat yi liggéeykat yi di liggéey usine bu fi tekki dara commerçant yi ci dëkk bi ñooy jaay semence service usine bu fi tekki dara baykat yi ci àll di ñooy bay li ngay defe sa matière première ñu wëlbatiku tamit gàcceel ñu ci loolu may wax léegi ci semaine bi bi coow loolu génnee dégg na tubaab ak dégg tubaab ma ne leen maa ngi doog di comprendre léegi lu tax nit ñi nekk ci werante boobu di ko werante ndax nee nañ xale yi bi ñuy jàng boo nekkee ci biir école bi ba mu yàgg nga wax benn baatu tubaab dañ lay takkal symbole symbole mooy loon ab yax lañuy ñuy jël takkal la ko pour gàcceel la ci pendant une semaine nga mel ne yow ab rabu àll nga bu nekk ci si biir yi ma ne kenn loolu nag moom moo tax ma ne la Sëriñ waxoon rek mi ngi nii ni ja ba bañ na jaamu yàlla xam naa ne ku dem ci xaqiiqa du làng bi lay wax waaye na tubaab bi doxale yow mu ñëw sa dëkk war laa jël sa làng jàngal la ci mu ne la sànnil sa làng fële waaye kaay jëlal sama làng waaye ruus nga ko wax fi nga jàngee loolu moo tax mooy complexe waaye ñun ñii tamit de loolu lañ ñu yare woon ca daara ji ñun daara ji ñu nekkoon kokki pantalon ñëpp wuñ ko fa am sol boo solee ñu ne la dagal boo waxee baat tubaab ñu ne la noppi waaye boole woon nañ ci ak yar ndax maa ngi fàtte bu baax sëriñ Ahmad Saxir Lo bi nga xamee ne nii am nañ fa téléphone mu am mu ne bu leen bu leen téléphone nag teg ko koy wuyu téléphone ne ko ku wuyu ne ko bismillahi rahmaani rahim mu toog ci waa ji euh, euh, kenn téléphone ne allo rek mu ne ko coupé mu ne ko kaay mu téléphone te benn way ne ko ajib isaa xiila aloo kuy woote làkkin naa tàqoo aloo booy woote man loolu li ma ci jàngat mooy moom ci boppam bu ko neexoon mu ne ko ku fi wax aloo kubbi ko tubaab yi waruñu wax ndax ñoom nañ ñu tere woon fële ñu wax suñ baat ba dañu fay takkal symbole xoolal différence bi ak sëriñ bi ni muy yare kii ne ko ajib tontul waaye xam nga fële moom boo fa waxee baat war a tontu la dañ lay toroxal dañ lay wax ne la bu ko te comme ni ngeen ko waxee ku xam Daaru Muxti eh, Maam Cerno nga xam ne nii moom daanaka bi mu dikkee fii état la teg ndax am na jamono boo xam ne nee nañ tubaab bi bi mu amul lu mu sax sëriñ bi ñoom la ko booleel mu jox leen lu mu dunde xam nga wuute nag jamono bi nga xam ne sëriñu daara ji mooy dem ci gouvernement bi ndax boobu mu njëkk gouvernement bi wut lu mu kon nag looloo tax ma jël sama programme bi tudde ko yokk ba yëg ko yokk ba yokk ko nag mën naa delloo lépp ci alquran ndax damay wax gars yi bu ngeen ma déggee may wax alquran waarewuma waarewuma ci diine ndax li may wax lis ki gëmul ci catholique bi sax mën na ko dégg ndax science laa koy jox la nit ki doon wax naan la Socrate neen na wala mu naan Albert Camus wax na loolu laa lay wax te man li ma lay wax mënoo ko dindi yokk ba yokk moom xam nga ne alxuraan moo ñu wax fastabiqul xayraat aynamaa takuunu ya'ti bikumul laahu jamii'an su ma nee ah, daara ji daara ji moom iqra moom jàngal moom mooy di jiitu ci waaw su ma nee tool bi mooy amaloo eh, fa sa yar laa amalakum wa rasuluhu su ma nee penc mi mooy wa amruhum shura baynahum maa rek mooy doomu kon nag ñun man-man giñ man mën a débrouiller suñ bopp nga dem ñu jox benn der ay dong nga leen di jàngal ngir yàlla fexe ba am dara di leen dundal di tëdd ak ñoom di yëkkati di teg boo ko defoon ka jàng tubaab ka nga xam ne nii moom bu juddoo ba léegi dañ koy wommat jàngal man ko wala nangam boo ko joxoonu classe sax jox ko dara te amul loo def ci poosam da subaa mu du yokk du xëy di gis kon nag loolu moom ñun ñoo ko mën a soppi rek ina daa laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla moom du soppi dara ñun ñooy soppi kon nag looloo tax mu dugg ci lii di ñaan nag ngeen ñu yëkkatiku ci yëkkatiku ndax am na luñ ci mën a wonee fayda ak doole joo xam ne nii ëllëg dana tax ñu wege ñu ci am na nag luñ ci mën a wonee ba ëllëg tamit ñu xeeb ñu ci ndax kat sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Cheikh Tidiane Maktoum Baye Niass jéemoon nañ ko jamono boobu sax xëy na jamono colonisation mi ngi doog di dem mu jafe waaye léegi loolu jeex ndax kattan Cheikh Astou Faye ñii laa dégg mu di ko wax mu ne ba ñuy teg assemblée yi dañ faa yónnee ne leen jël leen ñeent fukk ñu jël ñeent fukk ndax ñoo bokk xeex indépendance waaye xam ngeen gars yi ñoom buñ jotee rek fàtte daal buñ soxlaa ñu ngi nii buñ soxlaa da ngeen gis buñ ñëwee tengaat la ñuy sol man dongal daara laa ji di jéem a wax waxi aayee alxuraan di ko jéem a wax ci paree kon nag maa ngi leen leen wax ne man fii laa bokk ah sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla samay maam lañ ndax ña nga bokkee ca maam Dieng moo ñu kii Faati Balla moo meñ meññ maam Dieng moo ko kon nag maa ngi gërëm di sant te xam naa ne jotaay bi tamit samay bokk rek fi nekk waaw samay mbokk ren samay mbokk taalibe samay mbokk euh, euh, samay mbokk taalibe samay mbokk sëriñ bi daal jërë ngeen di fa salaamaaleykum jàmm ci dëkk bu tedd bii nga xam ne ñoo ngi fekkoon fi di nuyu sëriñ euh, turu sëriñ daara yi yëpp kenn desut ñu bari ñu ngi teew fii te xay na yéex a yëg gi rek waaye ban dana gën a mën a demee neneen waaye nag daanaka ci guddi gi lañ te xam nga tey bisub jàng la daara du am jot ma ca daara ja waaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la ndokkeel ci weeru tedd wi di la siyaar bu baax ak yéen ñi nga àndal ñu comme ni nga ko rek yow moom boo ñëwee di yëngu ci lii suñu xel dana ci dal lool lii moom ñun ñëpp la waroon jamono yeneen nit ñi dañuy wax ne ñun kat dañoo war a fexe ba fa ñu mën fa nocc ñu am ñu la fa nekkal daara am ñu ko ñu ko fa nekkal te yow ku xam ne ne ci daara nga yaroo daara moo di produit ba nga toll nii nga toll te ba nag li nga am lépp da nga wóor di jël da nga wóor di jël di la góoraat ko ci daara te lépp daara la kon nag boo wax yàlla tànk yi rek moom suñu ndax maa ngaa yem Tuubaa rek boo ñëwee ci mu doy waaye nag nga bàyyi li ngeen def yëpp nag kat damay ñëw saafante yi jàkkaarloo yéen wax eh, la ci ndam ndam loo xam ne si am ja moom ndax gis nañu ko mu ngi ba léegi yaa ngi dimbali daara ñu ngi topp di la topp foofu tolloo ndax daara ñu benn la boo ci rek mel rek yóbbu nga def kooku yëpp yëpp ak feneen ak feneen ak feneen rek loolu nag baax a baax gërëm nañ la ci sa liggéey liggéey bi nga liggéey ah, yéen ñu am solo loo xam ne comme ñu am ñoo si ñoom lañ si nekk waaye daal li nga xam ne si taar yëpp daal ñu ngi lay sant di ànd ak yow di di fas yéene ànd ak yow ci ne ne moom loo nekk rek ña kon nag tànk yi tànk jigéen ñi ne ñuy jàngale alxuraan ñoo ko jigéen ñi teew gën a gis xëy na comme ni ma ko waxee rek euh, sëñ Moussa Ndiaye mi fi dañu ko jox kàddu gi su ko defee euh, ak suñu Cheikh Mbaye ndax waxtu bi daanaka ñëw na kon daal sant nañ ñëpp gërëm ñëpp alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi président Serigne ñu ngi lay nuyu di wax dalal jàmm ci Darou bu baax ci tànk yi nga xam ne tànk yu am solo la nga jóg fekk si sa bopp yi sëñ daara te li ma ciy tël rek dara lu may lu jëme réew bi kanam ndax bépp citoyen am na droit xool réew man dëkk taxaw ci di ko jëme kanam def naa ne ci léeg-léeg mën naa yàgg mën naa metti waaye lii dëgg rek muy dëgg kon tegal sa tànk te jàpp bu wóor te xam ne dëgg rek ñu wëcc euh, lii nga def nii damay wax ne damay li ca Égypte njëkk booba mufti bu ñu wax Nasra Farid moo fa nekkoon égyptiens yi dañoo ñëw leen ci borom xam-xam yi mooy suñ daara ak yenn dikk ne ko politiciens yi daal ñu ngi yàq dëkk bi ay tilu la ñu ngi yàq dëkk bi mu toog ne ne istas abu mahaddi abi da ngeen di turu lu mel ni ñoom ba jot réew mi defar kon jàpp naa ne bu daal daara jógee gis ne war naa contribuer ci réew mi mu bëgg ci ànd ak doomi daara yi jàpp naa ne loolu rafet na te man sama xalaat naka jekk mooy foofu fi doomi daara nekk xam ne am pas-pas ci ne réew mi mën naa dem bu seen dox ndax lislaam bi lañ fi nekkal diina ji lañ fi nekkal te yonente bi ni ngeen ko xamee moom moo doonoon yonente bi waaye moo doon président bi mooy doon ministre de la moo nekk ministère yëpp moo ko occupé woon te yàqulu ko woon dara jamono nag dafa toll koo xam ne niñ daa bàkkee ab sëriñ akub sëñ daal dañ ko war a weesu na yem ca daara ji ak course ga déedéet intellectuels yi dañoo war di génne ci daara commencé na léegi sama xarit Alaaji Njaay Seex bi ñu ngi def loo xam ne ak mu mel ni ñoom bu sottee jàpp naa ne di yeegone yi ñu leen di jàngal nga xam ne yematuñ rek ci jàngum kese jàpp naa ne bu sottee fi ñu bëgg réew mi jëm dana fa jëm kon ni def nii lu am solo la ñu la ci ñaan yàlla suñu borom mu jàppale la ci te itam ñun xam nañ wala lépp ñun xam nañ ne sa mbirum bopp dox laa jóg dangaa gis ne système bi nii muy doxee mën naa gën nga gis ne nit ñi mën nañoo gën a dund surtout ci côté bi nga fare mooy nit daara ndax man bu may dugg ci mbir damay gëstu ci diggante boobu gëstu naa mel ni sëñ Muntaxa mi ak ñu mel ñu wax ma li nga xam ne moom ngay dugal sa loxo ci kook yi ak yeneen barab yi nga xam ne te ibtiqaa ani mardaatillaahi rek ci ngërëmul yàlla tabaaraka wa taala te rek mooy jëriñ ab jullit kon jàpp naa ne boo ñëwee daara musi muy dëkkub daara nga tàllal sa loxo wax ne léegi dangaa bëgg ñëpp bëggee jàpp naa ne ñoom it war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax kon daal kàddu yi mu gudd mu gàtt ñu ngi lay sant di rafetlu jotaay bu bu baax a baax a baax te xam ne am nañ ci kontaante ndax nit ki gëm boppam mooy mu yóob loo xam ne danaa ndax danaa ci mën a jot wala mën na cee jot déedéet def nag say moyen

wa atiyon rasul waaye wa ulul amri minkum la wax minkum waaw waaw bu yemoon ci loolu rek alxuraan day préciser bu ne woon wa atiyon laa wa atiyon rasul wa ulul amri yem fa waaye dana minkum ne fa in tanaazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasul minkum jooju mu wax moo tax mu ne fa in tanaazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasul kon nag ñun ñoo ci des nañ dugg ci mbir mi jël yëf yi buñ ko jëlee danañ ko defar ndax liñ yor defar nañ waaw li fi nekkoon tubaab yi buñ fi jëlee li fi nekkoon ci jàkka bëriwul woon li nekkoon borom xam-xam yu mokkal alxuraan bëriwul woon li fi nekkoon ci bërëbu liggéeykaay yu bëri bëriwul woon ay naara ci li ma nekk foo dem lépp ñun ñoo ko yor léegi waaye li des nag mooy ko jëlee rek mbir mi tegu ci yoon incha allah jërë ngeen. nga xam ne daan na jàppale bu baax te yal na yàlla defal na ndam sa yéen a mat na sëkk nag ndax lii moom la sëñ Fallou doon wax rek. ne ku fi ñëw ñu jàppale la. Hmm. waaye ki nga xam ne si na ko moom ak alxuraan ak lislaam yaa ci suñ yaa ci suñ bopp nga ne. Hmm. kon jàpp jàpp nañ ko bu baax. te ba ñu ci te da xam ne jàpp nañ ko. yal na yàlla jàppale la. Hmm. te li nga wax itam suñ borom dëgëral la. ba nga mën kaa eggale barki Sëñ Tuubaa barki Maam Cerno Birahim barki béréb bii nga ñëw na waaw dégg lool. ci ni ngay taxawoo doomi daara yi. ak daara yi ak alxuraan ñu ngi dégg say discours bi bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw kenn kuréel ki nga xam ne si njaboot gi moo ko ñor mm-hmm. ñun nag rawatina nag njabootu daara mm-hmm. kon ku nekk rek ñu ngi ci sa ginnaaw di la ñaanal yàlla nga xam ne wax suñ ko defee ba am ko jëfe beneen beneen doxin waaye loolu lépp ci ndimbalu yàlla saa borom rek lay bàyyi ko yàlla yàlla jàppale la bu baax a baax gi dafa dafa dëggal hmm. suñu jàppale la hmm. waaye ñu ngi doon dégg say discours nag ah, ñu ngi ko doon dégg te amoon ci mbégte bu baax a baax yàlla yàlla jàppale incha allah